président Ousmane Sonko muy benn singali nga ko topp ngeen ko sonal ngeen ko président Ousmane Sonko depuis mu nekk ci impôt domaine ngeen ko indi problème di ko topp di ko tuumal di ko toroxal ci kanamu njabootam ngeen tee ne mun ngeen koo toroxal mais yàlla toroxalu ko président Ousmane Sonko incha allahu rabbi mu nekk njabootam la seet ci njabootam lu jóge fii nii fekk si njabootam fële ci parcelle ci ci ci prison yi ngeen ko yóbbu monsieur le ministre muy benn démb ci sa ci sa wax maanaam am na yenn tontu yu nga doon tontu da ne ci article L20 euh, L57 bi da nga ne amoon na ku la ne mën nañ ko retirer moo lay ñaan pour nga retirer ko nga ne il faut ñu ñaan la njëkk il faut ñu ñaan la njëkk njëkk bi pour nga yëgee ko président Macky Sall ah njëkk bi pour nga yëgee ko président Macky Sall donc lu président Macky lu ma nekk def yëpp affaire maa tay la. pour éliminer ay ay adversaire actuellement la parce dafay bëgg nit ñi ñëw di ko su di ko sukkal di ko raama di ko tiiral ay dàllam pour ñu ñaan ko njëkk mais ñun Pastef ñun Pastef de lañ la wax si réew mi lañ bokk ay citoyen lañ te am nañ suñu candidat bu ñu tànn mooy président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko nag il jouit de tous ses droits pour mën a bokk si élection présidentielle lu ñu nekkoon si charte bu ñu teg si yeewu askan charte boobu la tous les candidats ñu nga xamante ne potentiel la dañu war a bokk ci élection élection législative bi da élection présidentielle bi monsieur le ministre bu ñu nekkee éliminé éliminé nga président Ousmane Sonko mais parce que président Ousmane Sonko moom kese moomu ko def parce que état d'esprit la ñëpp a bokk parce que suñu direct la nekk suñu xol la nekk président Ousmane Sonko la yàlla xar suñu xol bi dugal ko ci mu nekk suñu biir xol président Ousmane soo ko tëjoon mille ans mille ans ci prison bi fii nii président Ousmane Sonko day def li biir xol te Pastef day continuer di dund sama naataango bi ni nga waxee Pastef dañ kaa juddaale suñu biir deret la nekk te dafay law pour nga bàyyi président Ousmane Sonko jàpp nga ko mais Pastef day continuer ñu dox parce que suñu xol la nekk suñu deret la nekk deuxièmement monsieur le ministre détenus yi ngeen jàpp plus de 800 détenus détenus politique jàpp ngeen ay maire jàpp ngeen ay élus locaux jàpp ngeen ay journaliste képp koo xamante ne na di wax si projet Pastef ngeen ne ko di te loolu balaa boobu monsieur le ministre yow ñi nga xamante ne nervi yi nga xamante ne ñoo doon topp policier yi ngeen ni sëg bët caméra yi ngeen ni jox ñu leen di filmer nervi yooyu toppoo leen gis ngeen arme yu ñore mais yéen toppoo leen mais jeunes yi génn di manifeste di wane seen naqar ñooñu ngeen nekk di tëj ku taxaw ku taxaw di wax si Pastef ngeen jàpp tëj muy ay maire may mën a jéey ñeneen ak ñeneen détenu yi nekk camp pénal femme yëpp ñoo ngi en grève depuis kañ ñoo ngi fa amiga depuis kañ ñoo tëj ngeen toppee nga ne terroriste la force occulte la mooy force occulte ah force niir bi yi ngeen xamante ne yéen niir bi yi ngeen xamante ne yéen ñuy recruter dugalee ci pick-up jox leen ay pick-up yu bees nga xamante ne xaalis boobu xajoon na ci askan bi xajoon na ci hôpitaux yi wala xajoon na ci hôpitaux yi nga xamante ne ñoo ngi lakk wala wala seen i seen seen i malade ñoo ngi souffrir mu ngeen ko jël ngeen dugal ko ci askan boobu noonu mais déedéet ku wax ci parce que ngay yóbbu